Macky Sall bi mu ñëwee dafa consacrer son énergie sur l'émergence gis nga Sénégal ni mu changé donc président Diomaye fay bi tamit bu ñëwee li oustaz Alioune Sall di wax teg leen foofu seen baaraam moom li may wax boo xoolee en termes de science politique Macky Senghor est le premier des anciens et Macky Sall le premier des modernes lan mooy la différence aujourd'hui la modernité politique c'est l'émergence l'émergence est un combat politique mooy ni Sénégal ak Corée du ñoo yemoon donc ñun ñu xoolee ba correcture raw ñu Dubaï booy wàcc avion bi rek ngay xam Dubaï désert la donc ñun lu ñuy def ba dem Dubaï loolu mooy émergence loolu aujourd'hui c'est le plus grand combat c'est pourquoi je dis Macky Sall mooy le premier des modernes parce que moom moo consacré énergie ci alternance donc le président Bassirou ay Faye li ñuy ñaan mooy mu nekk le deuxième des modernes pas mu dellu dans les anciens lan mooy les anciens delluwaat ci affaire institution réforme institution parce que boo xoolee dëkk boo xam ni tu peux des élections en deux semaines def une transition en mois de dix jours amul problème institution te li may wax souvent y' a pas d' institution parfaite yow jàng nga jàng nga anglais Angleterre institution yi am léegi boo xoolee roi Charles bi ñu koy couronné procédure bi ak protocole bi noonu la ñu couronné woon Victoria institution li tax mu baax mooy le temps les institutions deviennent parfaites avec le temps américains yi élection yu y a bi ñuy voté le débat de fond c' était la le système postal parce que 1789 bi ñuy voté les treize colonies ñoo doon voté amul woon internet amul woon Google la poste institution Amérique yi ba léegi ça remonte à 1776 Japon institution yi fa nekk ça remonte à 1861 donc dëkk pour mu jëm kanam institution moo am institution parfaite institution da koy bàyyi noonu les gens s'adaptent aux institutions les institutions deviennent parfaites avec le temps Sénégal nag problème bi ñu am dafa am ñoo xam ne ñi may wax les rentiers la tension ñoom de ça tension électorale chaque fois bu élection amee ils vont encore proposer des réformes des institutions. vous parlez de la société civile. oui ak finalement politi politicien politicien dañ ci topp loolu mooy indi éternel recommencement boo xoolee classe politique bu Sénégal. boo xool classe politique Afrique Sénégal kenn gënu ko fi classe politique parce que quand même ay borom xam-xam ñoo ci nekk. mais tu as des polytechniciens tu as des banquiers de de de, de, de tu as des cerveaux exceptionnellement bien formés mais ñooñ boo xoolee seen cerveau 90 pour cent de leur cerveau est piraté par la question électorale. quand le président Diomaye Faye dans son programme a parlé de monnaie locale il a fallu que Abdou Mbaye fasse une sortie que mu reculer imagine Sénégal bu ñu tolloon ci débat boobu waxatuñ fichier électoral waxatuñ code électoral damay wax dëkk boo xam ni. administration bi mën organiser des élections en deux semaines def transition en dix jours ñu def élection opposition gagné la mairie de la capitale société civile Serigne Boubou gagné Kaolack kenn wartu wax question électorale donc dañu war a dépasser affaire boobu li may wax li premier des modèles li ñu modernité politique mooy ñu dépasser question boobu que les hommes politiques qui nous gouvernent ñu leen di juger sur des questions sérieuses comme par exemple la sécurité euh, la politique extérieure la question de l'école la question de l'économie la question la question du pouvoir d'achat Sénégal foofu la toll